muy weer wu bari ay xew-xew ci diine ji fii nu nekk ci Sénégal rawate ci dëkk bii nu nekk rawate ci ñi waaj nar a ñëw ñépp yàlla na leen yàlla indi ci jàmm fekk fi ñi fi nekk ñépp ci jàmm delloo leen ci jàmm bàyyi ñi fi nekk ci jàmm di indi nag xut ba boo xam ne euh, alaaji Fallu Mbàkke mi nga xam ne moo woote woon màggal gi fi Tuubaa moo ko defoon indi ay lay yu leer ci lu tax mu di ko woote ak bu ñu ko wuysee ana nuñ koy nuñ koy doxale dafa wax ne lu nit gàtt-gàtt xam-xam ca la woon ca mboorum gaa yu baax ya dana xam ne jàpp benn bis ci bis yi di ca fàttaliku lam cay fàttaliku jiitu na gën ak àdduna ñu bari euh, ba suñ jamono sos nañ ci ay bis yoo xam ne am réew koy moom tudde ko fête nationale kenn du xëy kenn du gont ñu ne réew mi moo ko moom te réew mi mënoo koo laal du jëmm ji ñuy laal ñépp ànd ca réew yëpp ko def daanaka réew mu ne am na bis bu muy fàttali dal ne bis boo fi gis nag bu dee ci diine la moom am na sabab jël na misaal ci bisub tabaski ne bisub tabaski la ca gën a ñor jullit yi mooy tawxiid ju dëgër ju seydna ibrahima alayhi salaam dundoon digganteem ak sunu borom ndax woo na ko wan na ko ci gént ne ko sa doom ji dama bëgg nga rendi ko mu jaral ko ko jaral ko doomam jaral ko ñam ko séqal ñëpp ñu nangu doom ci nangu yàlla wotee ko am xar muy bisum tabaski bisum tabaski nee na it gannaaw ba loola weesoo lu yàgg ñi dàkk bésit na ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane woon adduna di ca waxtaane dundug yonent bi di ca jàngalante am njàngaleem nee na loolu ku dem ca réew yi penko yi da fekk ñu fonk ko lool waaye ku ñëw ci réewi sow yi danga fekk ñu fonk ko lool loolu ñëpp ko bokk waaye ci biir diina ji it am na ci ñeneen ñoo xam ne ñooñu jiitu ci diina ji jàpp nañ seen bis bisi kilifa ak diine bu agsee ñu di ca fàttalante am njàngale mum teg ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ca poso dajalawaale sa njaboot ga nee na nag ba loolu amee fii fi réew mii fii Cheikh Ahmadou Bamba feeñe dunde fi li ëpp ci dundam génne fi àdduna ñu dencaat ko ci suuf si moom moomu ci dundam la woote wax ne daa bëgg bis bii di ko ak juróom-ñett saa bu buñ ca àggatee fu mu fekk waay mu santale ma ca yàlla ndax ci bis bi la ko yàlla tàmbalee jox yoo xam ne du dàkk noonu la ko wax daan kon warugar la ci képp koo xam ne yaa ngi koy wuyoo nga wéyal ndigal lool daan ne ndigal lool ndigal nag wéye ko ca la njariñ nekk ndax sëriñ bi ma bind ne laa tafaalu shay'an bi gayri idni fal idnu shartun fi qabul shan daan ne moom nag moom Alaaji Fallu mi ngi leen di digal ci loo xam ne ku ko ko laaj foo ko ko mën a laajee jaral na ko mu taxaw leeralal la ko lam ci digle moo ñu ñëw Tuubaa gii di ko fi defe si ndax lan di ca dàkk taxarriyan di ca dàkk di ca tàndale ngërëmam ndax fu ko waay defee yaa ngi ci ngërëmam yaa ngi ciy wut ngërëmam waaye fii mu nekk fenn mënu ko ko gënal ndax daa yàgg a bëgg daa daa bëggoon dëkk bi ci nekkam ba ku bëgg a dégg mbégteem dangay ngay tudd dëkk bi daan ne ndax mu mottilal ko lam tàmbale woon te ak ay atam mayi ko mu fekke ko bu mën ko àggal taxariyan li maradihi fi tatmimi binaa'i ma assasa daal ne nag buñ ko defee nii mu koy defee yaakaar nañ ne danañ ci mën a amee njariñu àdduna ak àllaaxira te yooyee mu lim ne noonu lañuy màggale ma fàttali ne Alaaji Fallu moomu kenn gënu koo xam ni ñuy màggale ab taawam soxna benn lu Fallu 1908 la judd ba sëriñ bi demee Ceyeen Jolof ba ca déwén sa la gane àdduna taawam boobu moom ak màggal gi fuuf kon kenn mënu koo gën a xam ni ñuy màggale ab taawam soxna benn Fallu moom ak fuuf màggal gi nee na moo ko fi woote di fi dàkk ngërëmul sëriñ bi ci ab sart bu fi kenn def njàkkare mooy munkar bu fi kenn fo loo xam ne ay wax lay doon wax di fo ci wax bu fi kenn fo te mu jëm ci jëf jëf joo ne am pola wax joo xam ne am pola mooy lahwun wala ayib loola kat am naw lay ci alxuraan wa ma hadihi alxayaatu dunya illa lahwun wa laib wa inna daar al la hiya alxayawaanu law kaanu yaalamuun adduna fu nit ñi daje nis tuuti lahwu ak laib tàmbale faa am waaye na xam ne lii tàmbalee fii jëm ëllëg moo leen di amal njariñ ëllëg ndax foofa ku fa dugg dutoo génn kon nee na nañ ciy jàng alxuraan nañuy màggale nañ ko déglu dama ne kenn gënu koo xam lu ñuy ndax ab taawam 1908 la juddu Sëñ Tuubaa ngay Jolof booba daa jógee Gànnaar ba ci déwén sa ab taawam juddu kon taawam boobu moom ak màggal gi fuuf walla boog bi ko sëriñ bi di bëgg biral boog bi ko sëriñ bi biral moom taawam boobu moom ak màggal gi fekk na mu am ay at yu bari nee na bal azimuhu niñ koy màggale mooy di jàng alxuraan sëriñ Muntaxa yàlla na ko yàlla sàmm fàttali na ko ren nee na ku ne na fexe bala caa àgg mu jàng ko kaamil sëriñ bi ay fani fani fani fan ci am kaang yomb na mu jàng ca kaamil tuddoon nañ ko bi ñuy sos bi bi ñuy woote màggal gi Tuubaa fàttaliwaat na ko kon lay amut ci ne màggal jàng alxuraan moo ci gën a ñor xom ndax moom lañ dëkk tudd fii tax demul moo tax xaddim lañ fi jëfandikoo dañoo jiital li war a jiitu wàcc ay kaamil yu dul jeex nag sëñ bu mag bi am na lu mu ci wax nee na jàng benn kaamil settantal ko ci ay fan xam ne saa boo koy jàng yow la yàlla di waxal moo gën di wëlbati di teg di wëlbati taf di wax lim du jeex bu ñuy jàng ci kaamil wa ayatun waxidatun tudubbirat fiha tafuuxu xatmatan minhu xalaat nee na nañ ciy tudd yàlla loolu it am na alquran aw ab aayaam yaa ayuha alladina amanu dkuru llaha dikran kathiran wa sabbixuhu bukratan wa asila kon ku màggal si amul jot lu dul bu nekkee ci alquran ji ma ngi ca dikrullah bukratan wa asila suba ak ngoon ak ya mel ni ñoom ak ya mel ni ñoom waaye togg aw ñam jox ko ña ko gën a soxla itaamu taami lil yataama wal masakin loolu ana nuñ ko mën a dabaatale suñu nii mooy ku ko man te fas yéenee togg mu dem ca pegg dëkk ba màggale ji fa ndax lan di toggal ñi nga xam ne mënuñoo amuñu luñ togg di jox ñi nga xam ne kenn joxu leen di jox ñi nga xam ne kenn bàllilu leen xel wa itaami taami lil yataama wal masakin waaye kon fii di togg di jox ay VIP boolewu ko ci di def nangam fonk ko lool di ko siiwal na bépp di ko gis tudd ko fi lil yataama wal masakin la wax te noonee lañ ko daan jëfe boobee bokk yi màggali Tuubaa yu jëkk ya ba bu yàggutoo borom at yu néew yi di ko fàttaliku ña daan màggal si ñooy indaale li ñuy màggale suñuy dem bàyyee ko waa dëkk bi léegi nag jamono soppi ko ne ba waa dëkk bi am nañu ko ci man waaye nañ dem ca pegg dëkk ba ñu nga xam ne moo ñëw ñëw te kenn du leen limaale ñoo di fa màggala ji di togg di leen jox su fekkee bëgg nañoo màggal wasilati rahim jokk ak bokk calaa loolu yomb naa xam ziyaaratu seet nit ñu baax nga dem di leen nemmiku ci yonent bi sallallahu alayhi wa laaj na laaj nañ ko jataay yi gën jataay yi mu ne rajulun saalih nit ku yiw nee na boo ko dee xool nii te àggagoo ci moom sax mën ngaa jariñu ndax dana la jàngal nu ñuy tooge dana la jàngal lu ab jullit su waxee ba nga dégg ko am nga yóbbal boo xam ne boo ko bàyyiwul da nga jariñu rawati nag mu xam la xàmmee la su boobaa moom sañ ko ko laaj mu tontu la bu fekkee jàngalekat mi ngi am ba tey da suñ tubaab daal liggéey daal ne wama jaraa ma jaraa lim bu bare bi ma tudd ko fi waaye lépp lu demee ak noonu lu demee noonu jàng alxuraan zikrullah qiraatul xasaid mooy zikrullah bi anwa ci la ko boole di togg di jox ñi ngay xam ne seen loxo jot na seen gannaaw ak jokk ak bokk ak seeti gaay yu baax yi nga xam ne seen jataay da nga fa dolli ko ci sa diine ak ci sa pas-pas wala tujaalis gayra man bihi tuzaad diina wa aqlan abadan tanal muraad bu dee dikru la tudd naa ko yaa ayyuha allazina amanu udkuru llaha dikran kathiran ko jàng di waaye nag ku ne na cay jàng lam man faqra'u maa tayassara min di amee waaye di déglu ku jàng alxuraan daal yërmande yàlla da cee juddoo wa ida quri al quranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamuun waaye togg jox ñi seen loxo jot seen gannaaw bu ñu demee ci alquran araayta alladi yukadibu biddiin xanaa gisoo koo xam ne kii lu a teg mu teg gi teg fële ñu ne ko ah loolu ko yàlla bu ma taseeg moom mu ne ah kay saa su nga taseeg moom fa dalika alladi yaduu lyatima wala yaxudu ala taamil miskin mooy koo xam ne kii faale wut yatim faalewut jirim faalewut jitim waaye doo gis mukk muy togg di jox miskin yi ku nar a togg jëmale si miskin yi sax mën na la xanaa xamu ne VIP yi fan lañ nekk nañ leen jëkkee bu dee sañ jot miskin yi yàlla nañu ci yàlla musal jokk mbokk mi ngi ci alquran afama yalamu annama unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa ama innama yatadakkaru ulul albaab alladina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna almithaqa walladina yasiluuna ma amara allahu bi an yuusal wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu al kon bu ma ko tënkee nee naa kenn gënu koo xam ni ñuy màggale ndax ab taaw moom moom màggal gi fuuf ci bi ko sëriñ bi biralee ne nañu ko màggal moom mi ko indi tuubaa nag layoo naag ñun ba noppi ndax daa bind bàyyi fi lii may wax nii moo ko bind te ku ko soxla mën na koo am nañ fi daje dàkk fi ngërëmul sëriñ bi jéem koo mottalil ay naalam cib sart feek munkar aj nekku ca ak lëxw ak laayb wax ay caaxaan jëf ay caaxaan waaye niñ koy màggale mooy jàng alquran dikrullah ak xeetam yépp di togg di jox yataama ak masaakin yi jokku bokk ak siyaara ji gaa yu baax yi yi nga xam ne soo fa demee da nga fa dollikoo pas-pas da nga fa dolliku ci sa diine kon bokk ñi nga xam ne dañ leen di wër di leen seeti li ma leen ci gaa yu baax yi nañ ubbi seeni bunt may nit ñi lu waay bëgg a laaj ci pas-pasam laaj ko lu waay bëgg laaj ci diinam laaj ko mooy liggéey bi waaye nee na laata mu yëkkati kàddoom li ko digle diisoo na ci ak ñi nga xam ne am na luñ mënta mënalu ko boppam murit yi mi woo mënaluñ ko seen bopp muy ak dawla nee na waxut ñu ne ko ànd nañ ci waaye lum ci lum laaj te moom mënu ko woon defal nañ ko ko ci booba ndox demewut nii mu demee bokk yi boobaak léegi mat na juróom-ñaar fukki at ak juróom 1947 booba ku ne xam ne ndox amagu Touba nii mu amee Touba li ko jàmbat jàmbat naan amut amut booba daa amutoon far bañ di ko jàmbat waaye ñooñu ñoo doon andi ndox mi nit ñi di naan ay làmp yoo xam ne fenn foo bëgg a dem man faa dem ñoo ko daa andi am na kër gu ne fuu ci wetu gaar bu ndaw fa leen daan dalal kër gaa nga fa ba léegi si booba dara féetewu ko penku te digg mag jumaa ji moo ne matul juróomi téeméeri mètre kon boobu dëkk bi xumbagul ñu daan defar lamp yi ñu leen tudde kër compagnie kër googu lañ daan dal waaye daanañ indi ndimbal loo xam ne ab dund la nu ñu ko daan joxe dañu daan seet kër yi nga xam ne moo ëpp ay dal te bu ñu fa dalee danañ togg jox gan ña fa dal rawat te ay yataama masaki ni jot ca dana yomb di leen ko jox noonu lañ ko doon def boole ko nag ñëw taxaw ne sëmm kuy bëgg a luubal boo leen gisee sam xel dellu ci ne ñii kat ñoo daan làggal suñu maam ya bu démb ak bërki dem loolu moom mënuñ ko am nee na loolu nag bu ñu defee ne defal gëm ñu ko defaloon daf ñoo jomb bañ di leen sant gërëm déedéet fu aw xew am daf leen faa ndax nit ñi lañ yore nee nañ te fu aw nit daje dañoo war a wétti la ji nit ñi te seeni yitte noonu la ko bindee ñuy defal nag bu leen defee ne dañ ko dañ daf ñoo jomb déedéet daf leen a war dong teewut nag bu ñu leen waree bañ def ko des na leen ca ki ndax yëf yi nit ñi lañ yore kon fu nit ñi daje dañ leen a war a wéttali ci isaaf boo ko déggee mooy koo xam ne man na dara lam mënul nga dimbale ko ci kenn du am néew am néew mënatul dara waaye isaaf soo ko gisee soo ko gisee ñu bind ko ci oto wala nga gis ñu koy def mooy koo xam ne mën na tuuti la mënut nag ñeneen roqandi ko tax nee na bu leen yaakaar ne nag loola daf ñoo jomboon bañ tax ñuy sant ak gërëm déedéet jombul woon nit ñi lañ yore nee nañ te nit ñi am na ñu man ak luñ mënut kon boog yàlla nañu yàlla dimbali bañ mën caa àgg ak jàmm lii nag dana am ñeneen ñu ne diw nee na woon loolu kenn sañu ko bañ yàlla day taxaw wax ñu ne waaye in hada illa asatirul awalin in hada illa soxrun mubin ñaata yoon lañu ko wax yonent bi wala ñaata yoon lañu ko wax ay yonent waaye yàlla dana woon yonent bi wa qulil xaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur alladina amanu wa amilu salihaati inna la nudiu ajra man axsana amala fal yakfur inna aatadna lidalimina naara axaata bihim suraadiquha suraadiquha wa in yastaxidu yuxaadu bi maain kalmohli yashfi lwujuh bisa sharaab wa saat murtafaqa yàlla ñu yàlla musal ci lu ñu wax rek ñu ne eh ku mu neex mën naa na tànn la ku nekk waaye nag kii woote woon màggal gi fi Tuubaa layoo nag ñu ko séqaloon nii na nii lañuy ñuy màggale ku def leneen na wëri keneen waaye du moom mi ko woote woon Tuubaa yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimiina amin والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتح البشر